salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu bismillaahi fiinin أقال يا الله صلي بقاء أبي بفيق يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان مهتد فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر منك يا الله أزاري ملاسي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 bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah alfatixi alxaatim wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi dawi almazaya walmakarim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu baay suñu sëriñ baay Muntaqa Mbakke suñu maam Bachiru Mbakke suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu anhuma ñu ngi yëkkati kàddu yu gàtt ci ndigalal suñu kilifa gi ñu àndal di suñu baay di Ahmed Sy ñëw jóge Tiwaawan ci ndigalal kilifaam magam Seydi Aboubacar Sy alxalifatul am li tariqati atijaniya ñu ñëw fii mu ni nañu la présenté délégation bi nga xamante bi moom la ko sëriñ bi booleel mu ànd ak ñoom ñëw ngir jottalil ko ziyaaraam ak ndokkeelam ci xew-xew bu rëy bii ni mu ko baaxoo def wuutu ci ay baayam ak i magam ni ko daan defee ak ñañu jamonoonteel fa tabarakallahu mu ni sëriñ baa ngi ko boole moom ak sa doom boo xam ni mooy Serigne Mouhamadul Habib Sy di doomu Serigne Babacar Sy Mansour mu boole ko ak moom teg ci Chérif Sidi Ahmed Sy bu sa mbokk ma Seydi Aboubacar Seydi Abdoul Aziz Sy Al Amin ñu ànd ak seen jaam bi ànd ak ñoom di Pape Youssoufa Diop ànd ak doomam ji ba tey di Cheikh Ahmed Tidiane Gaye mi ngeen xam bu baax a baax moom taxawaay bu rafet ci diggante bi ñu ñëw fekk si fi ñi nga xam ni ñoo ko wuutu fii nekkal ko fi di dawaayir yi aju foofa tey sowe fii ci te dëkk fii ci Touba nekkin fi nekk nekkin wu rafet woo xamante ni bii toujours jaa bu ñoo xamante ni bi jëmmoonte nañu ak góor gi dinañ ko seede loolu ni ko foofa daal ñu nga fa waaye suñu kër lañu ne yaatal ga war a am gépp am na ci suñu diggante ñoom kooku kooku fa nekk di alxaaji sawru kebe mi ngi nii min ko alxaaji euh, Modou Gueye ñu koy xam Modou Gueye ak ki nga xam ni mooy alxaaji Omar Kebe ah al alxaaji Abdoulaye Kebe ak njaboot yi ñu àndal yëpp ñëw fi waaye ci bi ñuy ñëwit sëriñ bi boole an ñu ngi bo mi ngi boole sëriñ ba sëriñ Sidi Ahmed ak doomam di sa doom di doomu xadra bi waaye doomu diine ji ndax xadaraat diine yëpp miin nañ ko mu yegg seen doom ji di Abdoul Aziz Ndiaye ñu koy Abdoul Aziz Aly Ndiaye mu ñëw ànd ak ak i rakkam fa tabarakallahu ñooñu ñooy délégation bi ñëw teewal alxaaji Amadou Faye Mamadou fay ak lamin mbay ak ñeneen ñu mën la lim ak sëñ Abdoul Aziz Cax mii nga xamante ne bii mooy loxol sëriñ bi fu muy dem mooy ànd ak moom kon ñooñu mooy délégation bi nga xam ni mbokk yi bu ma fàttee kenn ñu ma jéggal ma nga xam ni rek foofu ñu yemale ko foofu ngir jataay yi xam ngeen ni lii ñu bëgg ñu bare ko bëgg kon nag nee nañ nag lu lu ñëpp bokk boo ci jëlee la nga am lépp am ka nga ko seqal dina loru te te lore lañuy ragal kon nag sëriñ bi ñu ngi koy yemale foofu di delloo kàddu gi sëriñ bi incha allahu taala mu mottali kàddu gi incha allah abdu gannaaw bi ñu sàkkoo ndigal euh, sëriñ Sidi dafa wax ne gannaaw bi mu sàkkoo ndigal kilifa gi. nee ci kilifa gi. di cheikh Mouhamadinil Muntaqa. di cheikh Mouhamadinil Muntaqa. xafidahullahu wa yal na yàlla dimbale ko te dëgëral ko yàggal ko fi lool. wa yal na yàlla guddal fanam. ci defal ko ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa barke suñu maam cheikh Ahmadul Xadim. ci barke suñu maam cheikh waaye barke xolam. nee ci barke xolam. ak nee ak ay taxawaayam. ak mbooleem mbindaafoon yi nga xam ne. ak mbooleem mbindaafoon yi nga xam ne. ñi nëbbu ak ñi feeñ. ñi nëbbu ñu gis ak ñi ñu gisul. ñi ñu xam ak ñi ñu xamul. ñi ñaan gi genn la. nee ñaan gi genn la. mooy mooy ñaanal la nga gudd fan wér ak wérle. yàlla na ko yàlla def. nee mi ngi la koy ñaanal yàlla la ko yàlla defal. ji mi ngi koy ñaan. nee na diine jaa koy ñaan. mbokk gi koy ñaan. mbokk koy ñaan. nee adduna bi it mi ngi koy ñaan. wi tamit nee yoon wi itam mi ngi koy ñaan. yàlla na yàlla nee na yàlla na yàlla mottali yëpp. mi ngi ubbi ko yàlla Mbakke. nee mi ngi ubbi ko turu yàlla Mbakke. nee di sant yàlla bu baax. te lool ak nee te lottu lool ak tële ci sant ko. ndax yàlla ni toll. ndax ne yàlla moo toll noonu. ci fursa bi mu ñu may. nee ci temps bi mu ñu may. te yàlla jaarale ko ci nee te yàlla jaarale ko ci sa mbaax. li Pape Youssoufa Diop wax. nee li Pape Youssoufa wax léegi. jataay ak yow. nee jataay ak yow. ñëpp ko bëgg. ñëpp ko bëgg. nim sa itam. fa tabaarakallaahu ne xanaa kay li ñuy ñaan rek ne ñun daal en tant que njaboot di ay taalibe ne mi ngi ñaan yal nañu muurloo barke jataay bii ne mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi sallam di ñaan ci barkeem di ci barkeem yàlla bu yàlla dañ di sëmbërtël di sëmbërtël ay xéewalam ay xéewalam ay leeram ay leeram ay ngërëmam ci suñu maam Cheikhul Xadim nee ci suñu maam Cheikhul Xadim yal na yàlla beesal ngërmande ci moom sëriñ bi ñëw nañu nee sëriñ bi ñëw nañu ci nee ci sa ndigalu rakk sa mbokk sa mbokk soppe sa soppe xam naa ci ay kàddoom xam na ne kat li mu taataanoon ci ay kàddoom lottu ci melal ko na loolu lottu na ci melal ko ci làmmiñam te mooy mi ngi lay nuyu te nee na nag mi ngi lay nuyu sëriñ Babacar Mansour di sëriñ Babacar Mansour aam li tariqati tijaniya di mi ngi lay ziyaara di mi ngi lay massaw itam di ndokkeel bu baax baax ci nee ci saa su nekk. ci waxtu wu nekk waxtu waaye rawatina. waaye weer wii weer wii. rawatina rawatina. semaine yii rawatina. bés yi itam. di ñaan yàlla. nee di ñaan yàlla. nee ci mbaaxam ak ngëneelam ak tedd ngaam. nee di jottaliku. ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. yàlla nañu nee mi ngi ñaan yàlla ñu yàlla fayal suñu maam Cheikhul Xadim. maa ngi koy wax ay nee mi ngi koy wax ay mbokk barki démb. Euh, wax ni. nee dañuy wax ne. suñu maam daf ni. suñu maam daf ne. maam Ahmadou Bamba. maam Ahmadou Bamba. radiyallahu anhu radiyallahu anhu. nañ ko sant le yàlla nañ ko sant yàlla. waaye loolu ñun la concerné. waaye loolu ñun la yitteel. moom ba muy dem la moom ba muy dem la sant yàlla moom. ndax xam na fa ba muy dem xam na fi mu jëm. xam na ñi ko gunge. it ñi ko gunge. xam na ñi mu àndal. ñi mu àndal. wax na ko wax na ko it. asiru asiru. ma al abraari xiina asiru. wasanna al ida anni hunaaka asiru. asiru yooyu nag bu nekk ak la muy firi. nee na yàlla nañ ko yàlla fayal. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. mi ngi fedd li. mi ngi fedd li. ak bokk ak bokk. di yeesal yeesalit kóllëre. di fedd li cofeel bu baax di mi ngi lay wax ne. am cofeel ci yow. nee ku am cofeel ci yow la. ku am yëg-yëg ci yow la. ku am yëgit ci yow la ku la bàyyi xel la itam. mi ngi lay ñaanal mi ngi lay ñaanlul mi ngi sàkku it sa ñaan nee na wax la ni mu wax la ne lépp loo xam ne dégg nga ko dégg nga ko wala ñu dégtal wala ñu dégtal la ko te te te dégtuwul te dégtuwul bàyyikoowul tiwaawan bàyyikoowul tiwaawan te du fa bàyyikoo mukk nee te du fa bàyyeekoo mukk noonu itam la lay seedeele la lay seedeele ne ci wàllam moom itam ci wàllam moom itam lépp luñ ko dé lépp luñ ko dégtal lépp luñ ko dégtal mbaa mu dégg ko mbaa mu dégg ko te dégtuwul te xam na ne bàyyikoowul fii ci yow bàyyi koowul ci dëkk bi itam ndax lépp la ndax kat nee na lépp lenn la fa tabaarakallaahu nee na mi ngi lay sant ci sa taxawaay ci say xëy ci say gont ci say liggéey liggéey bu yaatu lool kaar kaar rafet lool kaar kaar rëy lool sell lool kaar kaar nee ci diine ji ci mbokk gi ci yoon wi ci réew mi ci àdduna yépp nee na wu mënti doon nee ci ëttu mbaax bu ñu rek. nee bu ñu fa yëree rek. mbaa ñu gëstu fa mbaa ñu gëstu fa. dinañ fa fekk sa jëf. daañu fa fekk sa jëf. ci wax nee ci wax. ak ci jëf ak ci jëf. yal na ko yàlla dollee yàggal yal na ko yàlla dollee yàggal. nee na ma wax la ni bi. nee kat mu wax la ne sagu lislaam bi nga. sagu sagu mbokk nee sagu mbokk gi nga itam. sagu réew mi nga sagu réew mi nga it. sagu adduna nee sagu adduna yëpp nga. nee sëriñ bi daal mi ngi lay ñaanal yal na la yàlla dollee jàppale. nee na itam. mi ngi am yaakaar. ci digganteem ak boroomam. mi ngi rafetal ay njortam. nee na nga dalal sa xel. nee na kat projet yi nga sumb yépp ak yi nga fi fekk lépp dana àgg ak jàmm incha nee nga jiite ko. ñun ñëpp ñu topp ci sa gannaaw yàlla nañ ci àgg ak jàmm. xam naa ni dootuma xam na ne dootul guddal. lim ma waxoon lim ko waxoon yëpp. damaa wedam. dafa dem daal ba faf wedam. ndax ci wax kàddu yi mu jóge. nee kàddu yi muy wax ki mu jóge. waaye itam kàddu yi ci ki mu jëmitam itam. tabaarakallahu lépp yàlla yàlla soppi muy ñaan. nag yàlla ko yàlla soppi muy ñaan. sa xadra maam Cheikh El Hadj Cheikh Seydi El ñëpp a ngi lay nuyu. toftal ko ci nuyoo ak ziyaara ak ndokkeelu Serigne Babacar. nee toftal ko ci nuyoo ak ziyaara ak ndokkeelu Serigne Babacar Mansour Al Khalifa. góor ak jigéen mag ak ndaw. di la jottali itam. nee di la jottali itam. nuyoo sa rakk. nuyoo sa ne ci yoon wi mi ngi woote. di fedd liwaat moom itam. toftal ko ci. toftal ko ci. yónneent xalifa bi. fa tabaarakallaahu. sëriñ bi daal jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. ñépp a ngi bég ci yow. ñépp ngi lay déglu. ñépp ngi lay ñaanal. yal na yàlla nangu lépp. ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam barke bis yi barke weer wi barke ki tax ñu bokk daje fi barke ki tax di maam Cheikh Ahmadul Qadim radiyallahu anhu tabaarakallahu ne ñu ngi dollee sàkku itam. sëriñ bi. nee nga dollee ñaanal sëriñ bi. ak njaboot gi. nee ak njaboot gi. waaye duñ ko yemale foofu. waaye nee duñ ko yemale foofu. nga ñaanal réew mi. nga ñaanal réew mi. duñ ko yemale ci réew mi. ko yemale ci réew mi. nga ñaanal adduna nga ñaanal adduna yépp. inna lillahi ibadan. nee am na ci jaam yi ñoo xam ne. ida aradu arada suñu bëggee rek yàlla bëgg. te amuñu sikk sàkk. nee amuñu sikk sàkk. incha allahu taala ne incha allahu taala. sax ñu bëgguloo sax ñu wax ko. waaye yàlla boole na waaye nag yàlla boole na la ci. incha allahu taala yàlla bu mu nekk suñu mujj jataay. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. tabaarakallahu nee ni ko Pape Youssou présenté léegi. sëriñ bi budul woon ak ngant nee sëriñ bi budul woon ak ngant. day jóg jiite njaboot gi jiite njaboot gi njaboot gi topp ci gannaawam. waaye ngant rek a tax waaye nee na xam na ne boppam la fi fekk te mooy sa jëmm ju tedd jii fa tabaarakallaahu nee ñi ngi dollee sàkku ñaan nee di dollee sàkkul ñaan papa Abdoul Aziz Ndiaye ak ay rakkam ak mbooleem ay rakkam ak ay magam yàlla may leen fan wu gudd ci wér ci kàttan ak yokkute ak yokkute. ci xéewal bu baax ci xéewal bu baax a baax. tabaarakallaahu nee loolu moo doon kàddu yi. nee ñi ngi dellu di jéggulu diis na lool ci ñun. nee kàddu yi diis na lool ci moom. ba ci toogaayu kaw toogaay bi mu toog ak yow ci kaw. dul woon sa ndigal bu dul woon sa ndigal. nee kon ci suuf rek. ndax li ñu bëgg. ndax li nee na ñu ngi koy mën a jëlee ci suuf. noonu nga ko defale noonu nga ko defale sa mag yëpp sa mag yëpp ak njaboot gi yëpp ba ci ki gën a tuuti ba ci ki gën a tabaarakallaahu yal na la yàlla fay yal na la yàlla sàmm yal yàlla aar yal na la yàlla wattul boppam yal na la yàlla wattul boppam defal la ko ci anamuk dund ak wér ak jàmm ak jàmm ak mucc yëpp njaboot gii fi nekk itam nekkal fi tiwaawan Tiwaawan mooy Touba Tiwaawan mooy Touba. mooy Tiwaawan Touba ko binde noonu yàllaa ko binde noonu. defe ko noonu noonu. suñu ñaari maam yu. tedd yooyu. noonu lañ ko dundale noonu lañ ko dunde noonu loolu itam lañu digle loolu lañu digle itam. yàlla nañ ci yàlla saxal yàlla nañ ci yàlla saxal. nee na loolu mooy kàddu yi. nam ko doon nam ko defee woon daaw wax na ni ren it indi na incha allah juróomi nag yu ànd ak juróomi toni ceeb ak ñeenti téeméeri litre yi dëwlin muy lu mu xeeb lool nag tey ñaan yàlla nga dolli ko ñaanal ngir bu at mu jot mu mën a yokk loolu incha allah jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Eh, sëñ Sidi Ahmed. Eh, nan day xamuñu sax lott nañu ci wax benn baat bu nu mën a wax bu mën a génne suñu yéene ak suñu cant suñu ngërëm ak suñu soññ suñu bopp ak suñu xol bu sedd ak suñu xel mu dal mun nu génne ci suñu làmmiñ bu mën a feeñal loolu am nañ mbégte mu rëy am cant gu e, yi nga xam ne Sidi Ahmed àdduna ko fi kaddu yobal na lépp yóbbaale na la tontu la yób kaddu yi yóbbaale na lépp yóbbaale na tontu li ma ko war a tontu na ko ndax man lot naa ci man ko waxee nim mu nekkee fi man. kon xanaa suñu borom dañ koy seeral rek mu ne ji xol bi muy yéene ji mu yëg gi muy warlu gi loolu lépp suñu borom laa koy seeral ci diggante ak sëriñ ba sëñ Aba sëñ Ababacar Mansour mu jóge ci kaddu yi jóge ci moom jéego yi jóge ci moom jaar ci Sidi Ahmed mii ak bokk yu baax yi mu àndal gis naa ko yëg naa ko bu baax a baax baax lu ci man la naa ci wax li ci yëg ak fa mu ma àgg lot naa ci sama làmmiñ lot na ci wax ko ñu xam ne yàlla rek laa koy seereel noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaay bii nga xam ne eh, Sidi Ababacar eh, feeñal na ko feeñal na ko ci jëm ji si ak bokk yu baax yi mu àndal eh, loolu réer ci man lool kon yàlla rek laay seeral sama cant ak sama ngërëm ci jëmm joojee ngeen jóge ak jëmm ji ngeen àndal ak seen jëmmi bopp gannaaw ba ma ko seeralee suñu borom di ko seeral kilifa yu baaxe mais si loolu moo leen ko seeralee rek eh, mu doy ndax du loo mën a wax sama lam yi waaye cant gu rëy ak mbégte mu ak soññ bu rëy ak yaakaar ju rëy ju dolli ko loolu rek loolu lépp ak buñ ci sama lammiñ ak guddi tam loola euh, yàlla rek laa koy seetal moom mi nga xam ne amul kumpa te it defe naa moom moo rek ci am solo eh, nañ ñu seeral nañ ñu nuyul Ababacar dañ ko nuyul bu baax santal ñu ko bu baax a baax a ne ko moom rafet njortu waxuma jëf jure ji sax ji jëf ci liggéey ci yoon wi ci seen jéego yi ak seen jataay bi ak kaddu yi si Ahmed yi waxuma sax loolu waaye rafet njort gi rafet njort ci man sama jëmm ju xeebu ji eh, maa ngi ñaan sunu borom mu fayal ma ko fayal ma ko lu kaw njortam ci dundu adduna gi ak dund alaxira gën a jëm loolu rek laa ci mën a feeñal ci nu ko mën a wane li nga xam ne moom laa yëg sama digganteeg moom loolu rek laa ko laa ci ko laa a feeñal kon ñaan bu baax a baax suñu eh, gannaaw bu ñu ju rafet ak jëf ju rëy ji nga xam ne feeñale na ko ci seen jëmm yi bu loolu wéyee il faut que ma ma ma sant ko sama sancantu bopp sama ngërëm bopp mun ma ko fay amul ko fay maa ngi ñaan ci sunu borom mu fayal ma ko ci lu kawe njortam ci yiwu adduna ak ci yiwu àlaxira la ciy jiitu itam yàlla dolli ak wéram dolli fan bi ba mu gën a lool doo ñaan bu baax baax a baax lott nañu ci wax li nga xam ne moo nekk fi noonu waaye nag yàlla mi amul kumpa noo ngi koy seeral ne am nañu cant gu rëy ngërëm lu rëy yëggu yëggu yëggu yëggu yëggu rëy soññ gu ci suñu bopp suñu jëm jëm xeeru ji seen jéego yi ak seen jataay bi ak kaddu yi si Ahmed yi soññ bu rëy la ci man kon alhamdulilah rabbil alamin noo ngi sant yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm di gën a seer suñu borom ni noo ngi gën a feddi suñu laxasaay li nu bokk muy lislaam noo ngi gën a feddi seen suñu laxasaay gën ko fas yéene ànd ak yéen sax dàkk ci liggéey lislaam ñoom lañ koy seeral bu baax a baax baax jërëjëf di jégalu rek li ma bëgg wax mënu ma ko wax <laughs> lott na ci wax ko waaw yàlla xam na ko kon maa ngi koy seeral di ko seeral maa ngi lay jottali tamit nuyoo mbokk soppe alxaaji Mansour suur mbay waaw nee na nee jot na teraanga yëpp ba démb rek abla xaaji Ablaye Mbaye peex woo na ko ne ko sëriñ baa ngi nii sang baa ngi nii yóbbante na ma ci yow ci ordonnance yeeg dépense yeeg yëpp mu ne kontaan na yàlla na la yàlla fay. waaw loolu defe wuñu ko dara. loolu kër kër Cheikh Cheikh Sidi Alioune. <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf. noo <laughs> xam nam fa nam fa demee. dëgg la dëgg <laughs> jërëjëf loolu tax nu ameel ko teraanga. jërëjëf ngir ngir ngir kër ga. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf.